lëggéeyal Serigne Touba dafa ku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke ak Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ko dar lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalxulaayi sayyiduna salaale yi la si abda sëriñ baara

ci ndigalul Cheikh Abdou Samad Mbacké mi toog ginnaaw bu sante yàlla nag julli ci yonent bi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Basir mu yàgg fi nuy ñaanal Cheikh mu Mati lay waaye di ñaanal jëmm ji toog di Cheikh Abdou Samad Mbacké mu yàgg fi te wér eh, sëriñ bi dafa wax ni nañu ko dalalal ganam gii muy sëriñ Saliou Sylla ngir ñu man koo gën a xam dañuy delluwaat ci way juróom bu góor te Tuubaa gépp maase xam ko muy docteur Sylla nu deltu ginnaaw tuuti dellu ci kenn koo xamante ni bii foo dox ci Tuubaa gis jëfam walla ci àdduna muy sëriñ Abdoulaye Sylla di kenn ci sëriñ bii toog nga xam ne buñ doon wax diggante sëñ Ablaye Sylla ak Cheikh Abdou Samad da wax ni Cheikh Sidiel Maxtaar moo leen boole barakallahu muy lu rafet sëriñ Ablaye topp ko jàpp ko sëriñ Abdou Samad mii topp ko jàpp ko waaye sëriñ Saliou Sylla mii toog nga xam ni moo ñëwal sëriñ Abdoulaye Sylla ak mboolem askan wi tam mat ko sëkk eh, dox ci doxin woo xam ni fa tabaarakallaahu kenn mënu koo weesu sëriñ bi wax ni gan la goo xam ne daal ñor na ko lool ba tax na mu ni nan yëkkati kàddu dalal ko waaye sant ko waaye ñaanal ko yàlla nag ndax moom de dañuy wax ni ndaw lu ne ka ko yónni jëmmi ka ko yónni lay taxawee kon bu fekkente ni lii nga xam ne moo ko tax a jóg te mooy gane jamono Cheikh Modou Lamine te Cheikh Modou Lamine ku ne xam ne bi muy ñëw ci sëriñ bi mboolem mag ña fa nekkan lañ doon moo ko indaale bis boobu attan lépp ci sëriñ bi ni nañ ci ñaanal ñaanal Ablaye Sylla waaye ñaanal ci sëñ Saliou Sylla mii nag ak mboolem ñi mu àndal ndax bis boo xam ni maam Cheikh Ibra Fall jàmbaar ja sëñ Daaru Asan Njaay ak mag ñooña la ñu doon wut bis boobaa ko indaale bis booba kon attan na lépp kon sëriñ baa ngi ñaan ci barkeb maamam Cheikh Mat Lamin barke way juróom ba Cheikh Sidi Maxtaar Ablaay lu mu yootu na ca jot yow mii di ndaw mit yàlla may la ges bu leer ak tànk yu dëgër ba loo doxi muy ndam nekk ndamal Ablaay nekk sa ndam sëriñ bi loolu la wax ni nañ ko tënk dalale la ko eh, ba tënkaat kàddu yi ba guddi nag ñu yeggale ndax mel na ni am na ay kilifa yoo xam ne war nañ fee teew te war nañoo dégg seede sii nga xamante ne bii Cheikh Abdou Samad yëkkati na ko mu jëm ci diggante ak sëñ Ablaye Sylla tam mat ko sëkk kon sëñ Saliou loolu la sëñ bi wax ne nañ la ko wax ci tënk eh, di la dalal jàmm di wax ni jéego yi nga dox neex na ko moo ko gënal lu mu mën a doon fa tabarakalaaw tafa dal dalal jàmm. loolo sëñ bi waxoon ne nañ ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah yonen ba dellu fa baat jaaseem ja ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox di lamin baara yonen moo dox si tànki sëñ Ablaye diggante sëñ Ablaye Sylla nag ak Cheikh Abdou Samad buñ koy tudd dañuy delluwaat Cheikh Sidi Maxtaar ndax Cheikh Sidi Maxtaar kat moo jàppan ci loxob Ablaye Sylla gor soosu boole koog doomam ji Cheikh Abdou Samad Mbacké waaye tabarkalla nag sëriñ Saliou mi tey ñëw dox si loolu mu ne balaa dem lu mu xat-xat ak lu mu tàng-tàng dana yëg si fi waañ wi saafoonteeg yéen nuyu leen ngeen xool ko mu xool la bu delloo gaaral ko ma xam ju baax ja sëñ Ablaye Sylla kon waa waañ wi asalaamaaleykum sëñ baa ngi leen di sëriñ bi nee nañ ñu lay fay barakallahu mu mel ni am na nu mbégte ndax ñun sëñ Abdou Samad lu ko waay defal duñ ko defal nun ñii mën naa ko wax kon bu bàyyee lépp bàyyi ñëpp te lépp soxla ko ñëpp soxla ko mu ñëw fii ñëw fi magam ju baax ja barakallahu am na mbégte ci yow sëriñ bi yàlla na nga gudd fan sëñ Ablaye si la yàlla na yeggale moo xam ak bëggam yàlla na ko sama defal barke borom Tuubaa barke Cheikh Sidel Makhtar Mbacké barke Cheikh Abdou Samad Mbacké Aji Mamadou Lamine Bara sunu mbar baari saxaye aduna duguluy xuus cim ndox Tuuba lay baari saxaye waji jaara jaara ma taasur naanu baari saxaye waji Mamadu Lamin Baara sunu mbar baari saakaaya baax na foofu saawaay sunu mbar baari saakaaya waa jundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee su fel sampub sëriñ baara ku la fa diiwaan fa peyib yàlla ñëpp nga daan jilam ba leesu fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa peyib yàlla ñëpp nga naan jilam ba leesu fi fel sampub sëriñ baara waa mul malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngi lamin baara فدت ويايلهم ودت فيايلهم وسم ويايلهم خمم سرين بارا وسسم يايلهم وسن جيايلهم كلن دي جوخ ndigal lay Sidi Lamine Bara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ Bara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taaw xaras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom na fekk buur bëgg la buur yàlla mi dëggal boppam buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa raaluhu ñeen na sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa wa xuraaloo na sëriñ baara soppe boromam la dib xejjam bu jëm abadan yal na nu bur yàlla def xejjub sëriñ baara ki moo di sibtu maaram leen nuyoo ñu ngi leen siyaar baax ci bis bi nga xamante ni moom lañu amal fii ci Mbàkke Kajoor muy benn bis boo xam ne nii bokk na ci mën naa ne bisu yoonu murit tey nag euh, Mbàkke sa xarit sa wóllëre sa am di jàmm sa lépp koo xam ne nii ànd bi démbuloo woon tey doog ñëw ba euh, tax na tey bi yàlla dogalee ñu ñëw fii ci dëkk bi nga xam moo di Mbacke Kajoor mu ne xañ na lu mën a am xañ na yeex nañoo agsi sax waaye dañ ne woon moom Mbacke moom bu ñu fi duggoon gis da rek daanaka moom màggal gi mat na ndax sa diggante ak moom xam na ko ndax démb tey doog a dikk moo waral mu ne lu mu rek nañ àgg si Moustapha di la ko ñu la di la tatagal ci sa bisub maam bi nga xam ne moom mooy màggal bi di Mbacke Kajoor loolu moo waral Sëñ si la tey mu ànd ak délégation bi ak euh, mbokkam yi nga xam ne mën naa ne ay jegeñaalem lañ ñoom sëñ Baara Diagne ak seen gaay yooyu seen groupe boobu nga xam ne démb la woon tey doog a dikk ba tax na laal xam naa ne kàddu yi mënut a bëri moom moo tax euh, loolu daal moo nekkoon tànk yi xam naa dañu lay daal di joxalu jox sëñ Abdou Lahad rek moom tam mu sànni ci ay kàddu. mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu santee yàlla sant Serigne Touba. ñaanal Cheikh Mouhamadul Mbacke Cheikh Mouhamadul Mourtada Cheikh Mouhamadul taxaa mu yàgg fi loolu te wér di ñaan tamit njabootug sëriñ Baara Mbacke gépp di ko commencé ci ki ko fi nekkal tey jii ba ki nga xam ni moom moo nekk moom moo gën a féete suuf ñu leen nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel tamit ci bisu Mbacke Kajoor bi di leen jaajëfal tamit di ñaan tamit ngeen yàgg ko taxaw di nuyu sëriñ bi di la ziar bu baax a baax a baax ci turu sëriñ Abdoulahi Sylla waaye ci turu sëriñ Saliou Sylla mi nga xamante ni jóge na ba Touba ñëw fi fekk si la ngir bokk ak yow bis bi bokk ak taalibe yi bokk xarit bokk am di jàmm yi sëriñ Saliou nee na mi ngi ànd ak yow bis bi di ko ànd ak say waajur di ñaan tamit ñu yàgg laa fekk fii di sàkku tamit ñaan ba nga xamante ni buñ fi dellusiwaatee tamit délégation Abdoulaye Sylla président Abdoulaye Sylla bu Sénégal moom lañ fiy ñëwee Serigne Saliou nee na mi ngi lay tàllal loxo ci loolu nga ñaan ko ci sa barka maam ci barka Mbàkke Kajoor suñu borom def loolu nee na tamit Abdoulahi moo ko yónni amoon yéene dagg ay yitteem ñëw waaye ku ne xam na ni jotam moom moo xaw a xat waaye nag lépp lum jàpp rek waa kër Serigne Bara moo ko gënal lépp lum jàpp tamit guy mbind moo ko gënal waaye lépp lum jàpp tamit ñëw ci bis bi nga xamante ne mooy bisu Mbacke Kadior di bisu Serigne Touba moo ko gënal waaye moom mi da di bàyyi faalem di rakkam ci ko jigee ànd tamit ay soppeem ak ñoo xamante ne tamit ñu ngi koy liggéey liggéey bu mucc ayib te yaakaar naa ni ñoom ñoom ñëpp benn lañ moom mi mu am ci moom cofeel am yaakaar ba dénk ko li xam te mooy région de Diourbel mu koy coordonné li nga xamante ne mooy côté politique ak élection yi nga xam te yàlla dogal na mu dëgmal ko te nekk ci candidat ta yàqalu ko defara te lépp tamit defaral na ko moo tax tamit mu xam ne sa xarit la sa soppe la te yàgg ngeen mu tànn ko ni ko eggal ma fa bokk fa eggalee mel na ni mel na ni demal naa fa sama bopp ndax fi ma féete man xam naa ko baax ndax yow yaay sama baay faal loolu moo waral tànkam bi loolu moo waral tamit doxam bi waaye nag nee na mi lay xamal ni la dañoo am ci luñ dëgmal liñ dëgmal nag nee na li ko ci boole mooy bëgg a dimbali yi waaye li ko ci boole nee na mooy dëkk Serigne Touba bee ab président bu yeewoo Touba tamit dëkk fa ndax am na fa cofeel am fa yaakaar am fa bëgg-bëgg am fa yéen a liggéeyal Serigne Touba te nee na lim yor ci ay moyens sunu borom dimbil na ko ak Serigne Touba bam bari lool waaye nag nee na liy jafe-jafe bi mooy dafa am loo xam te ne capacité yoo xam ne état moo ko man nee na nag mi ngi fas candidat bi nga xamante ni sunu borom dimbali na ko ci te dara waralu ko lu dul xetli jaamu yàlla yi muy ndaw yi ak jigéen ñi ak taalibe Serigne Touba nee na ngeen ñaanal ko ci ba xam te ne buñ ca eggee allahu rabbi la 24 mu dégg Ablaye Sylla président nee naa tamit man ngeen ko Serigne Touba fàggul na leen ko ngeen ñaan ko fàggoo ci bis bi nee na mi ngi leen sant di leen gërëm di ànd yéen bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ku nekk ñu ngi leen nuyu sa tur ak sa sant. di jiite nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi lool di nuyu sunu kilifa gi nga xam ne mooy kilifa kër gi di sunu wayjur di sëriñ Cheikh Baar moom Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Baar di nuyu Baye Sa Baye Saliou Sylla xam ne moo ñu fekk si fekk si fii Ndiaw Thiam mi ne mooy maire Pekes fekk si fii Baye Yoro moom seen Sir Mokhtar di nuyu tamit ñoom Baye Talla ak Xarim Ndiaye ñoom. ñi nga ne ñoo ànd ci délégation bi te di sant bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek ànd bi ñu ànd ak ñoom démb la woon tey doog a ñëw yaakaar naa ànd bi ñu daan ànd bu fekkoon ànd ba rafetul du agsi fii ba bisi ñëw ñuy xalaat a ñëw fii waaye Baye Saloum day nit ku baax lool nit ku oyof lool ñu ngi ko gisee ni ni mel nii noonu rek la mel nit ku baax la di ko ñaanal yàlla nag président Abdoulaye Sylla li nga xam ne moom la dëgmal bëgg ko yàlla na ko sëñ dimbali. yàlla na ko sëñ Baara dimbali te yaakaar naa ko xam dëkk bi Mbàkke Kajoor gi nga xam ne lu baree baree bari fi la sosoo lu baree bari fi la am fi la amee ngeen ñëw fekk suñu fii ñu ngi leen koy ñaanal ci barkeb Cheikh moom leen Baara Mbàkke lépp lu ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ci barkeb Sëñ Tuubaa président Abdoulaye Sylla nag moom ku nekk xam ne gis na li muy def ci li muy def ci dëkk bi ku dem barabu Sëñ Fallou bu gis nga la fa def ku bari dem barabu Sëñ Siir Muxtaar gis nga la mu def nit moom kenn du ko lekk kenn du ko naan nit moom njariñ rek nit bu amul njariñ mën nañ kaa delloo ay bokkam waaw waaw lii mu amu ko lii mu amagu si néew mi ngi ci liggéey Sëñ Tuubaa am na am na ñu ko ëppale fuuf yor ay milliards doon ay sët Sëñ Tuubaa te lee lii mu def ni def defuñu ko fa kon nag nit bu dëng malee daara nekk ca ànd ci ak ay nit te bëgg lu baax rong dugal ko ca war nañ kaa mën a jàppale di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg a àgg yàlla yàlla ko yàlla àggale barke sëñ Tuubaa Baye Sall na yow moom ñu ngi lay ñaanal lépp lay wut si fii rek yàlla nga ci am aw yiw sëñ Baara mën na ko sëñ Baara mën na kanama mën na ginnaawam waaw sëñ Baara sax dafa ëpp ñun ñii rek luñ buñ luñ la luñ la bëgg a ñaanal rek buñ la ko ñaanal ci barke sëñ Baara Mbàkke dugg su nekk ñaanal la ko day am sëñ Baara rek dafa ëpp. looy sàkku ci bis bi ak tànk yooyu mën a dox suba ba ay yiw mën a dox ñu ngi lay ñaanal li nga li ci sàkku yàlla na ko yàlla defal yàlla na yàlla may ndam yàlla na yàlla mos a seetaan la fa la di sant sama xarit yi bu baax a baax ñoom Baye taale ñi nga xam ne maa ngi ñoom chaque jour ñu ànd dara duñu tàqale dara dara dara duñu tàqale soo fekkee ñuy toog si di waxtaan sax da nga yaakaar ñun ñëpp ñoo bokk ndaay ak baay li may sant Mbàkke doon gone ñoom mag fuuf waaye ab baat mosuñu kaa jëli ba wax ma lu ma neexut wala ñu wax ma dara am ci kersa ba léegi duñ ma ñemee xoolaat. kon loolu bu ñëpp tewee ñu ñëw fii ci bis bi fekk si ma fi dinaa ko séeréel ñi nga xam ne ñooy samay mbokk ta fekk si ma fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah a ko xam ñëw leen siyaare siptu soxna jaara bu so ku jig murit yaa ngi nii te sëriñ baara kan mooy Serigne Baara jarbaatu ma moo rëy mbir waa daaru ali xam kan mooy Serigne Baara jàngul ba sonn mu tondoon gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa Serigne Baara fa kun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg firub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa kun fa yàggoon la dàmbee xam-xamub ikamam booleeg firub alxuraan mbooleem ku tànnal na di laaj réew mi ci ay wax rek nga koy laajee moom nag ci jëf la koy laaj ku koy defee jëfam Kaolack daara yi fenn la Abdoulaye Sylla bàyyiwul ku dem fekk mbaram Cheikh Ahmad Fadal jóge fa jaar Cheikh Sidel Maxtaar mi ko boole woon nañ dem ji toog ak yeneen ak yeneen nga xam ne kooka jàmbaar la kooku nag dara ñoru ko ndax bu dee teraanga yàlla defal nag bu dee jukko jikko ju rafet yàlla defal nag ko bu dee juddu bu rafet yàlla defal nag ko waaye yërëm na nag lii daw ci réew mi daal daw na yaramam daw na yaramam lool te moom li mu yéene mooy fu waay nekk mu fekk la fa tàllal la loxo soqali la loolu nag bi mu xoolee ni len rek moo ko mën a may mooy waa réew mi jox ko kàddu moom de kàddoom ku ne xam na ne nun de li nu am yàqin mooy Sëñ Ablaye Sylla bu jotee réew mii tey yu bari dana fi jeex ndax yi waral li waralan nit di wor yàlla da koo tàggaleek moom yàlla da koo tàggaleeg ñàkk tàggale kook nay tàggale koog kañaan te yii ku tàggoog moom mënatoo bew mënatoo wor kon kooku moo yebal jëmm ji toog di kenn ci moom di rakkam yéen nag li ma la wax léegi ci biir sëñ Saliou sa way jur ku xam sëñ Saliou Mbacke xam nga ko nee na musuma faj nit mukk mu faatu te ku ma faj wér na sa bàyyi ko wax te maa ci xam dara man mii nekkan ci sëñ Saliou docteur Sylla xam nga ko xam nga ko tuubaa fajul ci saayir da ko jàng rek ci saayir waaye baatin ba mu daan faje sëñ Saliou ko bàyyeeg moom kooku nag boo ko bëggee xam demal Touba waxtu màggal wala waxtu gàmmo wala waxtu tabaski du tëji buntam bañ na ko ba ca daral ngay toog ku ñëw ji taral la jox law nag mbaa mu jox la la nga tollool nga dem kooku nag su lenn jógee ci moom yëg ni réew mi sonn nañ te xam nañ li leen di dimbali nit ku baax bokk na ca xam nañ nit ku am ngor bokk na ca xam nañ nit ku am jom bokk na ca te yooyu daje ci moom mu wax ni nag mu ngi tàllal loxo waa réew mi jaare ci kan Cheikh Abdou Samad Mbacké mii nag fii ci Mbacké Kajoor ci ma ak kër Ngana yéen nag waaj leen loo tax ngeen war a waaj Cheikh du Samad de ku ne xam na ni cilmaxa mooy cosaanam ci way juróom bu jigéen mu mat ko sëg kon kuy wut dara fekk ko Mbàkke Kajoor ni ma ko waxee léegi te maamam Cheikh Mamadou Lamine ku ñu wóolu ko bi nga xamee ni mag ñi aban dañ doon luñ doon wut ci Sëñ Tuubaa te mënuñu koo ñàkk ñu ne fa ba maamam moom mi ñëw Sëñ Tuubaa da leen a woo wax leen li leen yéen day li ngeen wut am ngeen ko gan gi ñëw biig indaale na ko ma wax ni kon sëñ Saliou na sa xel dal na sa xel dal parce que nag ñii li ma la wax léegi billaahi wallaahi moo am bari na koo xam ne daa jóg rek di wut a naxe ndax nag réew mi sonn nañ legetu kese naxu ci béy te nit ñi nax nañ leen fu ne daw nañ fu ne ku woote rek bañ wuyu la rek nga war leen waaye ki nga xam ni si la maxtaar yàlla teral na ko macha allah mu xam ko manan cee du politique. du def dara te du ko tee tedd mu yërëm waa réew mi bëgg a soqali réew mi bëgg a réew mi waaye bu tallalee nag nan ci teg barke sëñ Bamba man day su ma ko doon waxal damay wax ni du politicien parce que politicien day bëgg dara amu ko mu di ko wut ci politique Ablaay li muy wut lépp am na te mu ngi ko am ci ngor ak jom kon kay dafa xool nit ñi sonn mu bëgg leen a soqali ci wërsëgam mu ne naa laaj réew mi boole ak samay moyen mën a soqali réew mi loolu laa gis man kon sëriñ Saliou ñeel sëñ Ablaye na xelam dal fii nag bu ci kanamee tuuti doo fi xej ni mu demee la rek waxtu jatt la waaye baas bii dinañ dem ba sécurité bii fi taxaw ni mu toll barke rasulullah dañuy wax ni ñi nañ jën loolu nag du kenn Cheikh Sadou Samb mën naa jàng nag lool waaye jikkoy sëñ Abdou Samad nag moo fi indi nit ñi kon lay yóbbante ci sëñ Ablaye am nuyoo akob siyaar jóge ko ci sëriñ bi jëm ci moom akook ñaan foofu la ñuy wàcce sunu kàddu si la maxtaar bàyyi la nag nga tàggatoog sa mbokk ak kaddu yi nga war a wax ak moom nga ñaanal sëñ bi sëñ bi ñaanal la aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu jiital ci ziar bi suñu xalifa Cheikh Muntaxal Bachir di ko ñaanal saa borom yàggal ko ñaanal yan bi nga xam ne nii yanu na ko yàlla saa borom defal ko ci tawféex li mu nar ci umma islamique bi nar ko ci yoonu murid bi yàlla saa borom defal ko njàppandal ba yàggale ko jàmm di nuyu waa kër Cheikh Mouhamad Cheikh Mouhamadul Baara di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu lépp Cheikh Sidil Mokhtar di wëllërey président Abdoulaye la di léppam président Abdoulaye Sylla moom doonul sax taalibe ci kër gi moom doom la ci kër gi di beral nuyoo nag Cheikh Cheikh Abdou Samad Mbacké mii nga xam ne moo waral lépp wax dëgg yàlla ko gi mu saxal ko fees ko dell nag dëgg yàlla Mbacke Balla Mbacke Balla ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax président Abdoulaye Sylla mi ngi lay nuyu mi ngi lay sant président jàppewu la sax ab sëriñ moom dalaa dalaa jàppe comme ku mu bokkal ndey ak baay ndax xam na fi ko Cheikh Sidi Mokhtar tolloon moom tamit xam na fi mu tolloon Cheikh Sidi Mokhtar ñaan gi ko sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar doon ñaanal ba léegi ñu ngi ciy teg bët waxoon na ko de sa gannaaw sama kanam ak sama gannaaw yëpp na sa xel dal te loolu mu ci teg bët bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal mbàkke nga yàgg fi lool te wér ndax sa yàgg fi suñu njariñ la wax dëgg yàlla ndaw nga waaye ndaw lu am solo nga ba tax na daal ñu lay ñaan fii nga xam ne nii fekk nañ la fi muy mbàkke baar yi nga xam ne fii la lépp tàmbalee mbàkke kajoor nga xam ne fii la lépp tàmbalee ñu ngi lay ñaan nga dogul ñu ci guddi gii yàlla saa borom defal président Abdoulaye Sylla ay tawfeex li nga xam ne mi ngi koy séntu ci réew mi yéene ji nga xam ne nii am na ko ci réew mi yàlla saa boroom def mu dajeek moom ndaxte wax dëgg yàlla yéene ji nga xam ne moom la am ci réew mi moom ku nekk xam na ko taxawaayam ci askan wi taxawaayam ci yoon wi ñëpp teg nañ ci seen bët li ñuy li ñuy sàkku rek mbàkke mooy nga ñaanal ni tax am nañ yaqin ne boo ko doggoo fii ci bis bii yàlla saa borom def ñu ngi lay ñaanal Mbàkke Balla nga def ci tawfeex bu baax a baax nga ñaanal ñu président Abdoulaye Sylla lii nga xam ne ni mu ngi koy yóotu mu am ci ndam lu kawe njortam ndam li doon ndamul Sénégal gépp rawatina ndamul yoonu murit xam naa ni duñu guddal kàddu gi dañ koy wàcce foofu rek di leen ñaan yéen mbokk taalibe yi bis bii ngeen fasal ko ci bu baax a baax a baax ndax yéeneem mooy teewoon fii waaye ñun ay ndawam lañ moo tax ñu leen ñëw fii feddali si kóor la rek wax dëgg yàlla kontaan nañ lool lool kontaan nañ ci jotaay bi jàng nañ fi jàngat nañ fi te bu ñu ngi ñaan yàlla saa borom bu ñu fiy ñëwaat déwén ñu ñëwaat fi ci beneen dayoo ci beneen dimension Mbàkke Bàlla mën nga ko mën nga lu raw loolu ñu ngi lay ñaan nga dogul ñu ci loolu ndax xam nañ ne boo ci dogoo rek yàlla saa borom def ñu ñaanal yéen ñëpp mbokki julli yàlla saa borom defal ñu sawaadatu daara yi jërë ngeen sëñ bi nee na na sa xel dal nanga dem mu dese la fi nga yegg ak jàmm li ko war lépp ci bis bi ci guddi gi ci diggam ak Ablaye président Ablaye si la dana ko def dana ñaan yàlla dana sensibiliser dana waxtaan ak ñu war a waxtaanal te am naa yaakaar ne sëriñ Abdou Samat nag ku àndal ci diggante bii di Kajoor ci kër Nganna feex Mbàkke Kajoor sa xel war naa dal ndax waxuma baayam ba si lal Maxtaar waaye jëmmam ji nag liggéey na fi lu toll noonu de mbooloo mi nga gis genn wàll gi yëpp ci ma xalañ bàyyi koo te ñoom ñëpp kenn ku ci ne Cheikh Abdou sama tëjuwu la tëjuwu la ci këram tëjuwu la ci poosam te loolu nag juddoom ak jikkoom moo ko may kon Ablaye Sylla sëñ Ablaye la président man mënu ma ne sax mënu ma ne sax président parce que moom li mu am moo président xanaa kay dafa bëgg a dimbali réew mi réew mi nag son na nag waxal nu président nag ni ko dong koy ñaanal am nañ ci moom yaakaar lool billaahi wallaay te nag am na ñu ko nekkal Touba de Touba gépp a ngi toog di ko nekk Touba gépp mu ngi toog di nekk président si la ndax ndax nag koy wàllu yaan nag sa kër daa si Sylla Maxtaar na sa xel dal comme ni ma ko waxee léegi rek day sunu sëriñ di sunu xarit yàlla boole ñu boole gu yàgg waaye nag lépp loo xam ne rek moom jëmmam ji tàbbi na ca nanga xam ne ñun ko ànd ak moom ñun nag amuñu lu sëriñ Tuubaa xaside yi jànkati xaside yi nag néew nañ doole lool ci saahir waaye nag bàcc am nañ ci doole képp ku taxaw nag ngir jàkkaarloo ñoom dimbali leen te sëñ Tuubaa tax na nga xam ne foo mën a nag koo mën a doon des na jàmbarloog yow wan la suñu jëm loolu moom sama kàddu ci kaw Cheikh Abdou Samad nii nag day sunu lépp fu ñu joxoñ foofu insha allahu rabbi des na ko fekk si foofu wasalaamualeykum wa rahmatullah ñoom seen président taxaw na kon yéen ñëpp nag sëñ Saliou booy boo ngeen taxaw de kii taxaw nii ab taalube la te du taalube bu làmmeñ taalube bu jëf la ak communicateurs yi voilà les communicateurs traditionnels c'est bien nee moo fiy teewal Sëñ Abdoulaye Sylla le président de la république futur teewal fi rakkam ju baax ji sëñ Saliou Sylla nee na kon mu ngi leen yeewi mu desal la fi na ñëpp tàllal amin amin amin Mbakke yal na yàlla nangu ñaan yëpp amin raayoo leen